xamuñu nag làmb ji kan moo koy gagné tey mu ngi noonu ndeysaan at bi baa ngi wax ak ñoom combat spécial baa ngi noonu 6 novembre 2024 arène nationale Amadia moo ñu fi woo tey Amadia production nag du Amadia comédien mu ngi noonu bëloo toj na nen at bi noonu laaj na assistance yi ba xam pare ngeen nee nañ ko waaw ama bu yoof pare nga waaw bëloo pare waaw at bi ndeysaan sifle na ama tibb na suuf arbi sifle na mbokk yi ndeysaan si diggante Ama bu Yoff ak Bolo bu yëmbal marin Bolo ngi noonu moo leen wan ginnaaw taxaw ndeysaan Ama mu ngi noonu si ginnaaw moo am moo ngem gi moo def lu ruus bi ku nekk kàbbar na sa morom eh man da xaw ma gi ah su kàbbaru timis te ngeen taxaw te ngeen bëree si digg géew bi ah bëree leen si digg géew bi waay ñu ngi leewtoo xale xale yëmbali nag gudduñ toll ni dañuy demee sañ bu garaaw sax sañ-sañ bu yéeme la xale yi di demee gudd ñu toll nii ndeysaan mu ngi noonu ndeysaan ama bu yoof safur la ah, kii gëdd na ko génn géew bi boloo gëdd na ama bu yoof ama génn géew bi boloo bu kër mbay fall sëqatal na ko gëdd ko ama génn géew bi ama da nga am ma ku la ko digal waaye ku la ko digal rey naa la loolu ñu la dagg du la ko rax du la ko remboursé Ama bu Yoff ni nga jëlee ni ma la gisee nga jëlee combat bi daa mel ni xamoo ki ngay bëreel de Ama joxol cër ki ngay bëreel ndeysaan ku ne ñu ngi tekk di xaar sa moroom Ama bu Yoff Bolo bu yëmbal marin euh, xale yi guddi ñu toll nii làmbane si ñoom ñu ngi noonu mbokk yi ndeysaan combat spécial baa ngi noonu amaana tey duñu fi guddee suñu paree léegi mën a dem entraînement mën a ndeysaan dem géej maa ngi dem salle kon ñun moom guddi guddi entrainement rek aca gaay ah, boloo jam na droite bu dal ah boloo jam na laa illa boloo boloo mi xeex la indi de waaye boloo sàmmal say tànk su kuy bi ñëw su kuy bi ñëwaatee ama dina jiw ak yow boloo sànni na dem jàpp boloo moo jaw moo jam daw jàpp waaye fekk fa lu mu bëggoon ndeysaan buloo bal nañ la buloo bal nañ la ama bal ama bal na ko di ko dàq ak plaqué buloo am na ngemb ama amul dara buloo mu am ngemb ama ama ngi jam ci suuf ama ngi jam la ilaha illallah xale yaa ngi bëre buloo dàq bi dàq dàq euh, kii bi mu takk si si jëb bi moo wàcc si moo wàcc si bët yi gisul dara instant yi Bolo ndeysaan ama ama ama mu ngi jam parce que xam na ne Bolo day ron ci suuf léegi buy jam Bolo du ñëw te Bolo bu ñu lim ah, Bolo ni mu jàppee woon farfos ñëw ci suuf rek la mënoon def comme liggéey comme que loolu nekkul solution kon day bàyyi lim jàppoon liggéey si kaw. instant ñu naan dañuy bëree bëree kaw lii mooy lii la ñuy wax bëree kaw dàq na ko na ah, aw sànni na ko naax dàq plaqué ci suuf saa yu taxaw ci ñaari xale yi ndeysaan kenn ëppul sa morom doole. mu ngi noonu ndeysaan ama bu yoof buloo bu yëmbal marin ku ne jàpp na ngemb ndeysaan di déglu sa morom ku ne jàpp na ngemb di bëre di déglu sa morom ay waaye moytu leen bal ana xar dugal tànk bal si moom ana yenu ama li ngay waaj ay Ama li muy waaj Mourtani laa tool di seen Ama lu mu bëgg a def ndeysaan mu ngi noonu mbokk yi mu bëgg a def Mourtani laa tool di ko seen boloo ngi ne tekk di ko déglu ndax xam ne ne instant yi jekkuwul ndeysaan mu ngi noonu boloo ja boloo bal na dàq dàqaat palaaj comme ni mu defoon instant yi ko defee Ama da koy résister moytul Ama muy waaj bis bu tànk bi lonkoo dootul deñati Ama dafa mën a bëree wet ndeysaan su ma juumul ah bañ a wax te Ama ndeysaan daa mën a bëree wet ndeysaan Ama bu Yoff Bolo bu Yeumbeul Marin bu jàppante ba léegi bàyyante wuñu benn lamb ji benn congo la ba tey cey loolu yal na yàlla def jàmm mbokk senegal Sénégal ci campagne lañ ne ama door na ko tànk wuy sama ay waay ama ama bolo ama bolo plaqué na ko oh law bolo daanu ko bolo daa mel da ngaa def quatre appuis bi nga bi nga koy sànni daa mel da def quatre appuis bolo oh arbitre jox na ama bu yoof daan na bolo bu yëmbal marin ndeysaan dañoo jàppante bëre ci suuf dàq mu daw di ko dàq plaqué bi mu plaqué sawaay rasu mu def quatre appuis daal def quatre appuis am na ndeysaan am na am na jël am na quatre appuis la am na quatre appuis am na ndeysaan mu ngi noonu ama bu yoof daan na Ama bu Yoff daan na Bolo Ama bu Yoff mu ngi saan mu ngi noonu Modou Anta ngi noonu sans borom la siège Modou Anta borom